fii ci ISEP euh, bu apprenant bi jàngee pendant quatre semestres euh, dañ koy évaluer si li ñuy wax projet opérationnel mu nekk projet boo xam ne dafay dajale compétence yu mu mës a jàng yëpp def ko ci benn projet pour que ñu mën a xam mu mën ñu wóor euh, apprenant bi liñ ko jàngal dina ko jëriñ bés bu génnee ci ci ci école bi yàlla def mu nekk ay jeunes yoo xam ils sont vraiment passionnés euh, def ak euh, je peux dire quelques heures si euh, initiation à la 3D mais affaire bi dal passionné len trop bañu am fitu jël ay projet animation wax film d'animation xamné projets projet la bo xamné ça demande beaucoup de moyens ça demande aussi beaucoup de temps donc am na noo xam ne boo ko organiser wul rek di nga sax dem ba décourager parce que di nga yaakaar ne c'est quelque chose de de qui n'est pas faisable il suffit juste de comprendre contexte bi ngay évoluer nga xam aussi li nga bëgg surtout aussi nga xam say limites bokk naa ci euh, pratiquement 50% pour emploi des jeunes cinéma war na ko mën mais euh, domaine la secteur la boo xam ça demande beaucoup d'organisation te dafa nekk organisation boo xam ne ñi ko xam rek ñoo ko mën a def donc euh, foofu laa bëggoon attirer surtout attention autorité yi di di di di ñaaxaat jeunes yi surtout euh, ci ñu ci ñu dellu si seen réew surtout liggéey liggéey parce que liggéey am na fi euh, déjà Mambulaan mi ngi koy junj tuuti si secteur agriculture bi ñu ngi gis baykat bi dans le film vraiment nu mu réagiré et tout Euh, mais mu nekk loo xam ne daal dafa mel ne xam-xam la bu ñëpp xam sénégalais boo wax dina ne la non fii mbay mi patati voilà donc c'est des choses yoo xam ne je pense que mun nañ koo exploiter